ngi lay nuyu. waaw baa ngi leen di fay. loolu la wax sax lu waral teewaay bi ndax xam nañ sa diggante ak Aziz. waaye bi tiis bi dalee ci kaw Aziz en tant que jullit lan la def ci yow. waaw xam nga bés bi bés bu bésu tiis la ndaxte ku ñàkk sa soxna mën naa wax ne ñàkk nga sa lépp te wax dëgg yàlla aji dem ji dafa nekkoon koo xam ne dafa baaxoon baax ci njabootam baax ci ay gorom baax ci xaritu Aziz ñëpp xam nañ ne aussi ciment la woon ci biir kër gi. kon nag bu yàlla defee tey jëlee ko fi ci anam bi mu ko jëlee suñu xol fees na waaye ku gis nit ñi ni ko taxawoo gis mbokk yi ni ko taxawoo gis waa Géejawaay ni ñu ko taxawoo ba nañu wax ne suñu xel mën na dal ndaxte loolu rek la liggéey ci àdduna bi kon nag ñu ngi ñaan yàlla yàlla xaare ko na te liggéey fi ndaxte ñun it ñëpp xam nañ ne ci njabootu Baye Allé lañ bokk ndaxte Baye Allé eh, kenn réerul mbir ne fa mu toll day wax ne man Malick gàkku sama baay la yaay xujja yi wax ne man sama yaay la kon nag ñoom Aziz ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi lu am ci kër gi muy lu neex muy lu naxari ñoo koy bokk kon nag li ñuy ñaan tey jii mooy yàlla na yàlla xaare soxna si àjjana te liggéey bi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala